Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu dal len jam mbok yi fo di tewlu sen xibaar info yeksi si nañ ci ab xibaar bu yes ci kile di Mustafa Cissé Lo moom ay atangi ni ñu gëj ka dal di gis ci projecteur yi mom nak mo nekkon ganu kile di Pape Ngagne Ndiaye gannaaw ba mu fa toge nak mom mi le di Mustafa Cissé Lo di nay sante ak di Pastef bi di Ousmane Sonko ak di Diomaye Faye moom nag yemul foofu ndax mi ngi leen di encourager di leen di wax ne traque des bien mal acquis bi nag xalaatam euh, moom moo di ñu daal di koy def euh, ci anam bu jaar yoon bañ a def euh, làq doom dóor doom te moom nag euh, ma ngay xamle ne su amoon ab conseil bu muy jox ki de di Ousmane Sonko moo di mu daal di des euh, ci premier ministre bi maanaam euh, nekk idimaanu jëwrin bu gouvernement bu Sénégal bañ a dem foofee ci assemblée nationale ndax foofu nag ka mu fa war a teg mooy nit koo xamante ne gëm na projet bi nekk nit ku am xam-xam boo xamante ne dina mën a jëmmal seenu projet te moom nag mu daal di desandi foofu ba ci kanam loolu nag mooy Euh, gëm-gëmam mu mel ni nag euh, kile di Ousmane euh, Sonko ak kile di Diomaye fay kile di Moustapha siselo Lo mi ngi leen di encourager teg ci nag di leen ñaanal ngir seen projet bi mën a antu ci anam bu jaar yoon ngir ñu mën a saafara jafe-jafe askan wi